moom daal classe baa ngi dem mais li ma intéressé ci classe bi ngaa ko def mooy dafa am ci biir sandam fu muy waxee naan euh, waa ëllëg bi ñoo ni diw duñu classante ak moom ndaxte taalibe Baye Niass la te Baye Niass daf leen dénkoon ne leen képp kuy seen mbokkum pas-pas bu leen ko laal bu leen wax dara ci moom nangam nangam mu ne jël leen gem bi yóbbu ko gàmbu Kaolack foofu mu waxee loolu ñu bari dañoo dagg foofu bëgg ko jaxase ak nit euh, nitu diine yeeg yu mel noonu ci da ngaa ko génn nag leeral mais il paraît que li mu wax moom lu leer la dafa ne ahlu birik bu ñu dugal ci game bi ay waxi diw maag mm-hmm. moom ay taaliba bàyyi la ñu duma ko classe diw taaliba sëñ Tuubaa la moom ñoo bokk sëñ Tuubaa duma ko classe en matière de game game la na game ci seen biir xam nga kenn ku ne mën ngaa classe sa moroom wax lu la neex mais bu ci xool ne kii taalibe diw la loolu bokkul ak seen game bi game ak vie privée ça n'a rien à voir fii ci game bi la mais fee Ngaaka Blindé taalibe Baye Karim la yow taalibe bay ñas nga donc ça n'a rien à mën ngeen a game ba àggal te yooyu yëpp du ñu dugg loolu la Ngaaka Blindé jublu woon ci waxam ji gaa yi nar koo déformé xam nga Sénégal dañu gaaw ci déformé ay wax donc léegi noo gisee noo gisee bataille boobu entre Ngaaka ak ñaari yi. ñaari boobu yooyu dëkk Mbour. Akhlou Brick Paradise. damaa réer bi bëgg a dee mais la. Akhlou Brick Akhlou Brick Paradise na ngeen ma baal nag ah man euh, seen bëgg naa leen daal mais euh, baaba laa gën a bëgg daal ndax baaba mooy sama rakk mooy sama xarit dëkk suñu géejawaay yi ma yar ko ci màggal gi jabaram bi ñu dajee Touba dafa yëkkati xaalis bari may ma ko kër sa kër sëñ Abdou Karim ma koy tooñ di ko sa xew li ma mag yow bëgg ñëw di woo ngaa jël ma ma simmeekuwaat li ma fayoon salon da li ma fayoon salon da ngeen ma koy delloo. Mm-hmm. delloo la yëkkati xaalis bu bari jox ma. ma koy nuyu bu baax a baax yàlla na sëy bi am barke. mais dama ree buy bëgg dee. ci classe ah? dama ree parce que rab moo manqué woon lii quoi. lii mooy rab bi mbaa xam ngeen loolu. bu baax. gém baa ngi nii nag di soog a ñëw mu ngi soog a commencé gém bi amul woon da doon nelaw. ñu ngi gém gém bu am niveau sax. ñu gém gém bu am niveau. mais s'il te plaît rek bu ñuy saaga bu ñuy saaga. mais gem bi yenn saa ay baatu. man dox tëgg rafet lu ma saaga yi man. nangam nangam. gem bi da koy laaj. man rafetlu ma saaga yi mais Ngaaka Blindé bi mu génnee leeral loolu baax na parce que li mu wax. Mm-hmm. li mu wax. Mm-hmm. dafa leer nee na man mun leen ma boole ak waa kër bàyyi te wax na dëgg. Mm-hmm. c'est mieux que mu génn leeral parce que li ñu li ñu yaakaar ne moom la wax ak ak li mu wax dafa bokkul te xam nga Sénégal dañuy modifier ay waxu nit dañuy dégg dara jël li nga xamante ni ku ko dégg mu xaw la déranger ñu génn ko tas ko. Mm-hmm. mais maa ngi leen di ñaan rek nañ gém seen gem te bu kenn saaga. nice na nii moom nice na. xam naa ne ngaa ko moom ku ko lebal midi. midi deux minutes mu génn ndax doomu géejawaay la nag doomu banlieue la. ah en tout cas ni ñuy gémmee nii. baaba kii neex na de. Ah. ba ba baaba li mu wax waaye ñee tamit am na fu ñu waxee banaan xaw ma lan. ñee nee nañ ko mbay demal toog. déedéet déedéet waxuma mbay demal toog bi sax ñee seen seen seen son bi am na lu ñu ci wax xaw ma lan ak lan ak lan daal ba wax ci xaw ma cegin xaw ma lan. ñee daal ñaari son lañ génnee bu njëkk bi ñu ngi wane seen doole seen xaalis ah ngaaka tamit nee na leen am ngeen ay millions waaye ci YouTube bi la yem ci view yi la yem maanaam millions de vues yi ñi am mooy seeni millions. ah ci yooy lañ nekk di classante entre ñoom ñaar ñoom daal mais neex na trop trop parce que euh, ñu ngi def ay clip yu baax ci diggante bu gàtt nag ñu tourné fi clip dóor fi benn sound dugg ci studio bi classé ay seen ah papis man nag damay far parce man nag damay far parce que géejawaay laa dëkk nag te ngaa ko beleen de sama rakk la maa ko yet maa ko yar nag yow tamit géejawaay laa dëkk je suis fier même man moom lu waay damay far nag lu waay wax wax wax te waxoo maxu poobar moom la dëgg wax dëgg yàlla c'est normal nag ma faral ma xu kii nag euh, ngaaka nag yow tamit nag mais waa axlu birit nag mën nañ trop mais ñoom dinañ ma comprendre dinañ xam ni ngaaka laa faral parce que géejooy laa dëkk gisoo ngaaka laa dugal sama statut sax sama téléphone effet secondaire ak éphémère jumboor yi yow daan nga wax ni rab bi day am classe ah. boo xooloo boo mësaana xool mbalax maa ni ñuy classante entre ñoom mooy seen nit génn fii yuuxu fii wax fii nangam classe boobu moom waaw mais bii classe bii moom c'est bon yaakaar naa baax na. na temps. Hmm. Euh, hmm. daf daan jar bu baax. xam nga nit ñi sax ñoo ko nit yi woykat bi daawul jël way wi yóbbu ko yóbbul ko kenn. Hmm. bu njëkkoon. waaw yooyu moom neexoon na trop. léegi classe yi day dem direct te loolu daawul amee noonu. xam nga tey benn bis bi ñuy wax naa naan Youssou Ndour dafay wax bañu démb suñu wootee xam nga seeni pexe jubul. Hmm. li ngay woote bi dëgg la si yow ñoddil mu dëgër wiiri wiiri jaari ndaari. yaa ngi dégg nit yi ñoo doon jël wax bi ñoom ñoom si seen bopp mais woy bi daaw ko yóbbu foofu kee di wax defal ndànk bul dof dof la dof damay foog coon fekk nga xam ni genn wàllu àdduna yëpp moo leen jàngal way yaa ngi dégg. léegi euh, kële naan moccaatu nen kenn du ci fot fot di xotti bool yi Youssou Ndour naan lekkoo si ndab warul tax nga bëgg see xëpp suuf Samba Abidjan Samba laa fay mu dem léegi euh, axlu birig mm-hmm. laay ñëw ak euh, ngaaka belende axlu birig xam nga leen axlu naa ne daal fii Feeling Dakar njëkkoon a logé suuf lañ dëkkoon ok xoola gars yi dañoo gis waa axlu birig mais xamuñu leen xam nga gis ak xam du benn. mën na mën nañ daal. xam nga fu ñu daan répété. si benn genre télécentre. ca Mbour wala fii ca Mbour. yore fa benn télécentre. su ma ñëwee seen ménageur bu tuddoon Ili moo ma daan indi su ma ñëwee ma leen sonal ak wax ju bari <laughs> xam naa leen. <laughs> yàgg na de. gis nga seen loolu ñuy def noonu. Hmm. gis nga li ñuy def nii. li génn li dese ko ëpp. est xam nga loolu. ah bon foofu da daan tàng bu ma ñëwee di leen tooñ. waaye ngaa ko dama nga ci studio. comprend nga li mu la waa xaar xaar tuuti ñun ndéggee boo waxee ba pare da ngay déglu ko. maa lay déglu waxal dama la tere wax. mais arrête toi. xam nga yow xam nga la mooy sa problème ñoroo quoi. ndax yow mi ñor nga jël. ku ñoro di yow ñor ba ca xomb ja nga jël. xaw ma ku la ñawal verte bi vert bi kii moom vraiment ajuwul. nga mel ni ancien PS nii. soo ñu may waa PS yi lii lañu naan sol <coughs> ak ñooñu di nekk fële te waaw nu mu tudd yow ko baal daayira bi xam nga verte bi lu ko indi foofu ah. waaw xam nga ko lu ko hmm? waa ndéegéey looy def nii <laughs> bu ñu bu ñu kiiwee suñu kii bi rek bu ñu ngaa ko beleen dóoree réclamation moom na ko rek. lool. ah dañ koy waaw YouTube la. ngaa boo ñu dóoree réclamation YouTube la. ah boo ñu doonee YouTube xamul yooyu. YouTube YouTube machine la. machine bi moo lay boole. machine bi moo lay. bi bul yàqal ñii doo dégg. yow la de. lu leer laa la wax baal ma waar ko tuuti wala ma continuer si li ma doon wax boo bëggee kay ma waasal la ko waas ko yomb na ma yaa ngi dégg kii moom damaa ay ci moom boo bëgg bu dee daf laa tooñ ñoo si man ma waas ko yaa ngi dégg koola wërul yaa ngi dégg dama ne Aliou axalu birig mm-hmm. yaa ngi dégg euh, affaire bi neex na trop du dégg ngaaka tamit affaire bi neex na trop parce que Daddy Gibson daana fi nekk ay ñoom gën maan xomaan yaa ngi dégg gën maan maa ngi koy nuyu dañ daan clashante muy neex parce que da da ngay dégg mu naan ana njool mi sàccoon sama tex bi xomaan la doon wax quoi mm. mu naan ana bandi salte bu sàccoon sama tex bi affaire bu garaaw affaire bu law ba foofu bu dee sa affaire foofu nga ko teg sa affaire du mën a law yaa ngi dégg waaw waaw dadi bi non gëree la xaw ma fu mu féete ñoom garçon fii affaire yooyu mais léegi man xamal lu ma bëgg mm. euh, king baa na trop mais xam nga booy bind bind dafa am doole ah, waaw léegi bu ñuy kalaasante bu mu bu mu dem ci pas-pas mm-hmm. parce que xam nga moom wax naa la dafa am tarixa bu bees bu fi nekk. maa ngi jégalu tarixa bu bees la quoi. comme waaw ngaa dugg na ci tarixa maa ngi jégalu. del bind seen tur ñooñu dinañ leen lim fii après ci kanam tuuti. ñi muuroog ñi doon def yëpp maa ngi jégalu dinañ ko fi mu a def émission quoi. wan leen loolu tarixa la bu bees bu nekk Sénégal. yaa ngi dégg ngaa dugg na ci maa ngi jégalu ji dégg nga ah. yaa ngi dégg léegi nag li may wax mooy affaire bi neex na trop parce que ngaa ko bi mu ñëwee ba léegi moom ak dib rab bi dafa xaw a jóg yaa ngi dégg ñu ngi téye rab mais su ma sañoon rab bi boo doyee seet man bu njëkk ba paa yi est-ce que xam nga paa yi dañ daan déglu rab mais rab bi dafa xaw a ñëw ci côté ñoom ndey géey quoi nañ ko xoolaat tuuti rek <coughs> est xam nga loolu. côté ñoom mooy taasu daanaka ñoom ndey géey ñi tuutee tee ñu nekk rappeur parce que booy seet rab bu njëkk bi. comme ñoom gën maan néew bi ñu ngi koy nuyu bu baax def na émission bi gën a meilleure émission néew bi moo ko def fan yi na ko ñëpp ñëw seetaan déggoo nee na Pape Sidi Fall soo ma mayee cinq palaato ponkali rappeur yëpp nekk fa ma changé rab bi man rab daaw ma ko tardé une heure émission rab bu jeex ma jàpp beneen xam nga lu tax message yi daan ñëw dafa daan am doole mais message yi léegi ci rab neexatu nañ gën a nañ gën a defaraat affaire bi rab daawul nekk ci benn refrain kese di dem yaa ngi dégg am na sam benn booy rappeur mu ngi si suuf Abibu jiite moom tamit ñu ngi koy ñaanal mais xoola rab bi nañ ko gën a defaraat parce que nii nii dafa nroog taasu daal. il paraît que ci euh, Fata dañ ci taasu la taasu la jóge parce que taasu la man bu mu tànn lim man ah. bëgg ko faa teg xam nga coow li ci marché bëri na mais kenn ku nekk soxlaam lay wax li tax marché bii riir noonu Aliou hmm. jaay ma kaani jaay ma soble moo tax marché bii riir du benn wax de du yuuxoo ñuy jënd lañ lu dëgg bul mën taasu rek tax yow nga bëgg a jël rab bi yóbbu ko si taasu rab xam nga nu mu tudd ci olof jabbutu la tudd jabbutu suñu maam yi buñ daan bay ni ñuy jabbutu. comme daam waa waa waa mais daam. daam mun na fu mu toll nii daam bu ko neexoon mu ñëw ci rab bi hmm. rab bi moo déplacé fi mu nekkoon dem fekk ji taasu d'accord man du ma ne la rab fu mu toll nii xoola rab laa daan déglu déggoo ma de daara ji bi mu génnee kaset ñu ñu njëkk jënd kaset bi ci laa bokk daara waaw voilà buñ daan dóor fële ñoom di ja abadi buñ daan dóor bu ñu daan dóor Monaco plage xoola ñu fa daan jiitu man ñii ci laa daan bokk man ak sam benn gaayan Jibril Ba ñun ñii ñëpp fa lañ daan dem rab lañ daan déglu ñun xam nañ rab mais rab bi actuellement nii mënatuloo ko déglu parce que dafa xaw a taasu non man moom moom déggaluma la lii xam nga lan moom ko yëgal. Ria Diallo mooy estat yi. waaw ma rab baa ngi yëngooti. mais ñoom ñoom xoola ñoom. ñoom dañoo ñëw foo xam ne xoola barki démb xomaan gisoo affaire yu ndaw yi mu def journal rappé bi muy def léegi démb gis naa ñu ko live sax si live yi mujj gi ñu koy teg. gisal pour yu ndaw la dajale rek yow xoola nga dundaat rab yow automatiquement. affaire bu garaaw ngi noonu. yaa ngi dégg. waaw ah, kii lu muy mii mii <laughs> yaa ngi dégg xoola gis nga ko rab dafa dundaat wax dëgg yàlla non nañ gën a defar wii nii xoola nit ñaa ngi leen gis xam nga <laughs> ah. nañ gën a defaraat message yi daal gën ko yóbbuwaat si seen grand yi jël ci tuuti quoi wax dëgg nit ñaa ngi may gis nit ah, lu baax la de baax la loolu lu baax la waa baax na xam nga man de moom xam nga leen <laughs> Aliou. Ah. gis sama loxo yi nii gis nga ko nu mu mel nii. yàlla daf maa defal bu ma jàppee du rëcc. waaw mais bu ma jàppee nii jàpp du rëcc. loolu la may lool la ma yàlla may doole loxo bu ma dugalee ba jàpp nii saye man daal man daal. <laughs> waaw sama frère man moom je avec lui tout je tout cœur avec Ngaaka Blindé banlieue doomu banlieue laa nag comprendre leen ma Akhlou Brick ah naa <laughs> seen affaire yi nice na trop. mais félicitations encore à Ngaaka. nice na trop daal mais. ni ngeen bëggee cere xam naa ci dara nag cere moom bëgg ngeen ko trop. mais nag Alioune damay waaj a benn bis bu mag mooy jour bi may lancer sama mouvement bi ah. mouvement sa waaw ànd taxaw jàpp ànd taxaw dooleel président Macky Sall. par force par force sa bëgg-bëgg bëgg. léegi hmm. président Macky Sall par force par force. 2024. président Macky Sall président njëkkante la. bu ñu xamoon fu ñu kañ lañ koy falaat ñu daw songi comprendre nga. maa ngi koy xool daal diggante fii ak euh, ci biir octobre bi mm-hmm. incha allah def benn tànn béer bu rëy ñu dekkalaat fecc sabar sabar dañuy dekkalaat sabar te su may def sama yëf damay teel a préciser sama yëf képp kuy artiste nag ma déglu te bàyyi ma xel ku sol tubéy bu dugg sama yëf mm-hmm. ku sol baa kese bu dugg sama yëf waaw waddul sër wala nga sol lu baax pour mën a ñëw fecc Mm-hmm. loolu dama koy préciser sama yëf. Mm-hmm. te su may def samay sama promotion yëf. Mm-hmm. loo lool loolooy slogan bi est que dégg nga bu baax li ma lay wax. bu baax ñu ngi bàyyi xel. fecc laa bëgg ñu delloosi ko sabar ñu delloosi ko te yàlla tax. fecc dëggantaan. waaw te tëggkat yi ñuy tëggaat sabar te yàlla tax man loolu laa bëgg te loolu laa bëgg dekkilaat. te sama jour bu may lancer sama mouvement bi jour boobu laa koy def. ci biir octobre bi incha allah bu neexee yàlla. mais loolu loolu boo ko dee def yow da nga ne eh, eh, artiste fecckat yi. ñu sol baa affaire yooyu. waa léegi xaar xaar xaar dama lay laaj. parce que xam nga yéen ni ngeen doon feccee wax dëgg yàlla ak fecc yi nga xam ne lëmbal la waa xaara xaara tuuti rek. non man je parle pas may ma dama lay wax noo yow dama lay laaj rek. en tant que yow fecckat. waaw xanaa yow da def groupe sa groupe bopp si euh, sabar gi. ay da dadaa daggee fële. ñeneen comme ngeen wanewaat fecc daal. Eh, eh, déedéet. yaa ngi dégg. waaw. Ah. mais hmm. ah. bi de léegi mu ñibbi Congo. loolu laa la. waaw ah. lëmbal mais mais mais mënoo continuer di lëmbal di lëmbal rek. yaa ngi dégg fecc da ngay jóg. waaw fecc kat ngay jóg. waaw. Hmm. fecc man su lalee ba léegi dama mën a baax. nday li nga daan lal laali nga ko toogal. xool nga waaw ah, mais Ndeye Gueye mi est-ce que ça va ah yow. ca kaw. mu lu ma la wax. mais loolu am na fi am na fi moo tax ma bëgg a dekkilaat parce que artistes yi may réclamer dafa bari. mais lu tax gars yi bu ñuy def clip. yéen ni ngeen formé duñ leen laaj ñoo ñoo ñëw fecc voilà parce que peut-être peut-être ñoom li bëgg ngay jaay seen clip loolu la. jaay clip mooy lëmbal. mais tëb bi tëb bi mais tëb bi tëb bi tëb bi daf ko naay sal xoola ñetti noon mooy way boobu ñetti noon déglu leen ma wax leen ñetti noonu boobu yooyum kaani xeen du yooyum guro ni ñu ko feccee jóg léegi-léeg xoola damay toog di ne fecckat yi jabaru Pape Ndiaye kii. trois eh. waaw eh. ak eh, yow kii askanu lawbe jóg bi fecckat yi ni ñuy jógee ba pare bu ñu tegee paa bi ba teg ko rek bu ñu dellu see nga xam ne ñii non ñun. dañoo soxla Alioune instant bi gis nga fecckat yu ci bari ay lëmbalkat yu bari mënuñu laal li na ah moom dama cee ànd. lëmbal moom wax dëgg yàlla pourtant nag pourtant pour non non non mais lëmbal fecc la oh. fecc la non mais lëmbal. non non lëmbal fecc fecc fecc lawbe kese lawbe kese moo daan fecc lëmbal. noonu lëmbal fecc. yaa ngi dégg. day attirer public. ah da koy attirer si. si. lëmbal day. attirer wane sa biir lëmbal. non non waxuma ay waxul wane sa biir. lëmbal day attirer public. mais comme ni ñu koy defee nii mun foofu laay waxee. Ah. mais ñun ñu nekk nekkoon ci aar bi ñun dama bëgg léegi man sama jour programme te man dinaa contacter ñi ma war a contacter ñëpp sama jour programme man damay dekkil fecc sabar laay dekkil sabar sabar. Mhm. ceebu jën ak baara mbay ak yangaam ak ndëj ak faru jar. Oh. ak ràmbal. ak tuus. ca ñëw. loolu laa bëgg ñu tekkilaat ko non dafa ndànk Aliou. na leen parce que dafa bëgg a dee kii est li fi nekkoon ci fecc nekkul moo fecc lépp. waxoon na ubbi école de ndax li ngay seen tubaab mën na ko laa lay wax nii. Ah, gis nga tuus yi mbër di fecc bi ren ki ceekin ceeñ ren ki cee kin loolu mbëri di fecc tous hmm. loolu fecc kat dëgg da koy fecc sabar <laughs> commentaire bi hmm. la jëm rek eh, xam nga lan la bëgguma yii <laughs> ma kilifa laa ndeygay arrêteel sa sa yi ah, man damaa wax damaa yor njaboot ma fonto <laughs> waa ngi dégg waxatuma ci de ah. waa ji nee na ah daam daam anaka daam nee na lëmbalu jumboori <coughs> nee na cee lëmbalu jumboori. <laughs> eh daam yaa ngi ëppal nag daam yaa ngi wàcc karo yi. yabaate. Aline est-ce que eh, est-ce que dégg nga ma. bu baax. daam man du ma lëmbal loolu jëluma benn télé mu ñëw couvrir ko Feeling Dakar mu koy couvrir. waaw suñu bisa. incha maa ngi koy defee en face police Guédiawaye. ah waaw bi ci bayaal bi. waaw xanaa gars yi danañ war a régler. non du am benn problème. déet foofu kay nu muy amee problème nga dem ba buntu police. foofu kay du am dara moom. Eh, waaw loolu moom incha allah ay le 20 octobre yooyu laa ko bëgg a def ay ah, wala le 25 octobre maa ngi xool bu soobee yàlla rek sans dépôt. Hmm. mais bëgg naa daal ñu dekki la fecc. j'ai rien contre ñuy lëmbal parce que dañoo mën li ñuy def. parce que loolu moo mais mais dama bëggaat. non xam nga man waxee ma ko noonu dama ko waxee ni. culture Sénégal fecc bi du loolu quoi xam nga ñun ay mm-hmm. kànda boo nga maan lañ xamoon ci yooyu lëmbal yeeg yooyu du noonu ah? yaa ngi dégg. boo demee ba indi ko lëmbal nag gars xam nga lëmbal am gars yi dañ ko daan def bu njëkk ba dafa daan am soirée lëmbal waxal rek. waaw mais bu ñu jaxasee lépp jël lépp rabaje ko ba lépp di lëmbal. Aline dama am benn xaritu fecckat ku tudd ma jéey mu ngi dëkk mbuur waa hmm. ñu dàq fecc senegal ci la bokk ma jéey mu ngi dëkk mbuur léegi bàyyi Fall Ousmane man ma jëlee baaxul bi léegi ma jëlee programme Mbour Aline ñu invité ma programme ma ni ma ma mel ne tànn taw waa kër waa waa kër Ali waa kër kii yi waa waa kër Papa Gueye di ko di ko tëkk ah. ñuy baax baara mbay ji wàcc boo ko bàyyee sa émission bi sabar la koy ki jagi tag tag ki génn ki génn tag tag ba ndég guddaandaandaandaan ki taakin sabar gi wàcc rënd gi ja mais gis na bi ma jëy baara mbayee ah. ba baara mbay ba ñu dugal ko tuus waaw nga xam ne fecc dëgg ngi tëggkat yi li ñuy wax man d'accord naa ak moom de xale yi léegi bu ñuy bu ñuy bu ñuy animé xew xam nga la la def bu ñuy tëgg sabar mm-hmm. dañuy teg clavier teg waykat est-ce que comprendre nga lu wax tëgg sabar tëgg sabar. nday waxal rek ñun xamuñu ci daan <laughs> moo gën quoi. looloo tax ma bëgg ah. man ku bëgg a ku bëgg ànd ak man ci programme boobu nag ma contacter nag. ci 10 10 bi ah. waaw ci 10 10 bi. ah da ngeen di fecc suba ba ngoon. non <laughs> t'as pas Jumbo ba li ngay def. ah Jumbo day caaxaan te man. man caaxaan moom la présider bis bi. xoola moom la ñu présider Ndeye Gueye Ndeye Gueye. man kilifa laa de bu mu eh, ñaar. non bu mu ñaar nga ma naan présider ay sabar yow. non non ay jàng ay jàng. <laughs> lu leer laa la. Ndeye Gueye nag xam nga lal la nday Ndeye nag sama jigéen nga Ndeye ñuus naa la xam nga la ma la xamal. yooyu yan. ma rek. ku ma fekk ma ne ndàng ci kanam <laughs> sabar gay jóg ah. sa waay nee xamoo ba xam damay bañi sabar xamoo. Jimbori noonu la defoon xoolal ay njabootam dajaloo ne ko baal sabar fecc kat la woon xoola paa bàyyi bàyyi fecc sabar ku mel ne ndéegee xëy tuddee ko sabar paa jóg yaa ngi dégg <laughs> waaw def ko lu rëy laa la wax nii. xam naa bis boobu moom sa bëgg-bëgg gi fu ñu ko rekkee moom nday jumboori doo ko mën a muñ xanaa nag. kan. sa bëgg-bëgg non non man yee non non na bàyyi ba am ay jàng tudde ma ko. kii na ma jox cër. su ñëwee di nga am lu raar jimboori musta dem soirée. bàyyi ko rek <laughs> waaw wàcc ko rek. jimboori musta dem tànk damay damay bañ ñëw fa ñëw fa doo ami nit. waaw moo tax ma ne la fexeel loolu am rek yow ba nga gis jimboori ci ca ca ca base ba rek. nday mu sol garaam bu ko. nday bu rusloo sa bopp. façon bi. tax nit nit di eh, eh, eh, di ma di ma ree. kenn du la reetaan. non non. loolu yàlla jox ma cër yow tamit lii boo ma koy tuddee sax nga noppi ba ma ba wuy ma mu noppi ba ma ñibbi sama kër mais magum mu toog ci télé bi ko dama lay tuddee ay sabar. Jimbori du fecc sa bëg-bëg non non non sa bëg-bëg. bu dee man kay sa bëg-bëg fecc moo ko sama yoon newu ci. man mille kay ji mu ci def. Hmm. loolu laa koy artu rek waaw. dëgg la hmm. ñu dem ci 2024 googu ak euh, suñu ma suñu yaay Mimi Touré Mimi. xanaa Mimi danañ ko wow ci sabar gi moom tam. ñu fekk ko Mimi Mimi ku ko xool xam ne daan na fecc sabar.